li nga xamante ni moo ñu indi fii rek moom mooy euh, en tant que ay euh, parlementaire autorité locale euh, chaque jour on faisait dañ doon def plaidoyer pour que président de la république à travers organes yi nga xamante ni moo am ñu jàppale jigéen ñi ak ndaw ñu tey jii nag promise ñëw nañ fii cees ñu am ci mbégte lool pour financer jeunes yi femmes yi ak ñi nga xamante ni. Euh, ñoom ñooy yëngu ci wàllu ay commerce parce que gis ngeen ne financement bi nag dafa am solo parce que financement bi euh, gouvernement Sénégal dafa jokkaloog li nga xamante ni mooy banque islamique de développement pour ñu am financement boo xam ne amul intérêt parce que ni bëriwul trop boo ci tegee intérêt dafay diis ci ñi xamante ni ñooy bénéficiaires yi muy jigéen ñi ak ndaw ñi surtout nga xamante ni seen doole bëriwul donc ñooñu dañoo soxla ku leen accompagne donc non seulement amul intérêt mais aussi du xaalis boo xamante ni dañ ko joxe dañuy ñëw xam li nga xamante ni moom la nit ki di yëngu maanaam muy jigéen wala góor ñu ne ko indi loolu ñu jox la matériel matériel boobu ngay jox di nga ko fay mais du am intérêt xam nga loolu moom mooy yaa ngi dimbali nit ki et je pense que président de la république loolu la mës di def par rapport ak jeunes yi ak femmes yi parce que ñun ñëpp xam nañ ne ñëpp mënuñu réussir école ñëpp mënuñu ku nekk am nga activité boobu ngay def président de la république nag moom dafa son programme social dafa euh, law ci ñi nga xamante ne nii ñooy surtout ndaw ñi ak ak femmes je pense que lii dafa yokk rek loo xamante ni commencé woon na ko parce que gisoon nañ fi ay DER gisoon nañ fi ministère de la femme gis nañ fi ay financement yoo xamante ne nii les autorités dañ ko doon def mais lii dafa ñëw yokk la nga xamante ni mooy programme président di remercier bu baax ki nga xam ne mooy njiitu promise di madame Fatou Diané di profiter ci occasion bi di ko jaale way juróom bu góor bi nga xam ne génn na àdduna démb di remercier aussi équipe bi nga xamante ni moom la ñu fi indi parce que depuis ay fan ñi ngi fii di enrôler famille di leen accompagner te lii financement la boo xamante ne lu ñu naan lu ne fang kenn du ko jeex parce que yéen ci seen bopp du ay dige du ay leneen dañoo ñëw woon famille ak jeunes neen kaay leen jël yéen ñi gis ngeen ne li ñëw muy wàllu frigo muy wàllu tricycle yi muy jakarta yi muy li nga xamante ne nii moom mooy machine à coudre ak li nga xamante ni ay bons de financement la pour ñi nga xam ne dañoo nekk dans le petit commerce loolu lépp ñi ngi seeni loxo te dañuy ñëw ñu jox leen ko loolu nag je pense que loolu lañuy xaar ci état loolu la ñuy xaar ci ay direction yoo xamante ni dañu jokkaloo ci état donc loolu daal mooy li nga xamante ni moo ñu fi indi et on continuera di accompagner un femmes ici à travers les directions ak euh, ay euh, organisations comme promise yi nga xamante ni président de la république moom la def ci programme am pour jàppale ndaw ñi ak femmes yi. Yaaya Diatta directeur financement ak partenariat. au niveau du programme de développement de la microfinance islamique li ñu fi dajale tey mooy financement yi nga xamante ne président de la république Macky Sall à travers programme de développement microfinance islamique ak waa banque islamique développement bu ñu lëkkaloo moo ko jagleel jigéen ñi ak ndaw ñi surtout wax ñu ne ci ñëw ñooñu la yem ñeneen ñi ci lañ bokk mais en priorité jigéen ñi ak ndaw ñi financement yi nag tey lu tax ñu ñëw fii maanaam ñu ngi soog a commencé financement yi am na promise ñu bëri xamuñu ko woon xëy na buñ ko déggee aussi def nañu ay tournées ñu bëri mais ab depuis un ou deux mois ci lañ commencé financement yi ndax président de la république ci boppam xaarul bid mu dugal xaalis dafa jël xaalis état bi ne commencé leen balaa xaalis bid di ñëw donc moo tax ñu tàmbale financement yi ça fait deux mois dem nañu Matam dem nañ fu nekk tey fii ñu ngi fii cees mais ni may wax ak nii ak yéen bu ngeen demee Mbour tey à quatorze à quatorze heures ñi ngi fa di financé boo demee Kër Massar dakaar ñi ngi fo di financé boo demee feneen ak feneen ñi ngi fa di financé ngeen ak seen xeetu financement lu koy wutale ak yeneen yi donc jumtukaay yi ñu fiy andi mooy ay congélateur pour jigéen ñi surtout ñiy jënd ak jaay ay euh, machine à coudre pour artisan yi ku ne xam ne jigéen ñi dañuy yëngu ci affaire ñëw ak yooyu ay tricycle parce que tricycle tey ay transport bagage ay transport dit ak yooyu yëpp daf ciy am solo mais également ay jakarta ku ne xam ne ne jakarta euh, moyen de transport la boo xam ne kenn mënatul koo dindi ci suñu réew donc mais loolu aussi danaa ci ñëw tuuti parce que dafay ànd ak formation parce que ñu bëri dañuy ŋaññi jakarta yi mais jàpp nañ ne jeunes yi amuñu formation bi war mais donc day ànd ak formation am na aussi ay cuisinières pour jigéen ñoo xam ne dañuy nekk ci wàllu restauration mais aussi ci wàllu commerce également parce que femmes yi aussi dañuy yëngutu ci wàllu commerce ñooñu ñun du ñu joxe xaalis directement loolu dinaa ñëw ci laaj bi nga xam ne moom nga laaj lan moo wutalee financement yi ak yeneen financement yi beneen financement bi da ngay ñëw lii laa soxla ñu jël xaalis nga dem li nga ciy def après loolu souvent duñ ko topp duñu xam et souvent day bëri détournement d'objectif mais bii nag ñun du ñu joxe xaalis financement islamique dañ lay jox la nga soxla ci jumtukaay ñu ne la moo ngi nii da ngaa bëgg a liggéey lii la jëlal nga dem liggéey maanaam ku gis jakartaa tey dañ leen jakartaa baa ngi nii duñu tey tey tey tey yëpp yaa ngi fi bu paree dañ la jox kayit yi bu boo paree rek mun ngaa génn commencé daw. amul tegandaay amul dara déedéet donc loolu lu lu am solo la loolu moo ko wutale ak financement bi nga bi ngeen xam bénéficiaires yi deux cent soixante cinq bénéficiaires lañ sélectionné gum waaw ñaari téeméer ak juróom-benn ak fukk ak fukk ak fukk ak juróom n'est-ce pas c'est ça ak juróom-benn fukk ak juróom. donc day am suivi parce que antenne bi loolu tax ñu sànc ko fii. fi ñu nekk nii tey mooy sunu antenne régionale à partir de lundi bureau yi gars yi dina dinañ dinañ fi commencé xëy si donc képp ku am projet aussi fii ngay ñëw oloo ngay ñëw ba Dakar di déposer ji pour que nit ñi wàññi leen coono déplacement euh, man firi kii lañ ma jox ko sàkkoon waaw maa ko sàkkoon. ci lan ngay yëngu. Euh, maa ngi liggéey pol technique polytechnique Abdou Mbow moom moo wutal place may liggéey fa laa jóge nii ñëw. tey lii ñu la jox nii ban njëriñ la la fas yéene amal ci liggéey takk sama ndigg rek fas yéene cee liggéey daan sama doole ba mën a fay waaw ndax bañ ñu ko joxee dañu ko jox pour ñu liggéey delloo pour suñu yeneen morom yi nga xam ni amuñu ñu am kii nag garmi la góor la ñun dañoo dëkk moom dëkk bu neex. waaw ñun lu ñu soxla ci suba ba ngoon rek lu soxla suba ba ngoon rek. moo ngi ci macha allah ñu kontaan ci moom bu baax. jigéen ñi souvent dañuy wax ne ah, état bi defaluñu gisuñu moyen sa jumtukaay yi mi ngi nii bu leen ko joxee après voilà liggéey bi xaw a des looy ñaar sama rôle jigéen ñi. bëgg ñu góorgóorlu takk seen ndigg état bi li mu mën def na ko ndax état bi mënul tibb jox ku ne waaye buñ joxee ku mel ni kii. mu ñëw andil ñu ñun jigéen ñoo war a takk suñu ndigg liggéey mën a delloo pour suñu yeneen moroom yi am président Abdou Mbow lekkul dara bàyyi yow. kii lekkul dara bàyyi ñu mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci jumaa yi mi ngi ci amul lu mu dul def paasu màkk yi amul lu mu ñu defal deseelu ñu dara ñun bu deseel day am ñun ñoo ko deseel waaye moom deseelu ñu dara ba mu ñuy jox financement. booba financement xewul da ko doon génne ci poosam di ñu jox ñuy joxe barke Serigne Babacar kii dama koy ñaanal gudd fan ak wér ak wërsëg ak xéewal rek yàlla musal ko cat te may ko wér. maa ngi jóge xombal madame de maire mbaru Dieng moo ñu fi indi. yow tudd. Asfal laa tudd. Mhm. mbaru jàppale na nu loo xam ne rek ñu ngi ciy yëngu mu jàppale nu ci. yéen ci lan lañ leen jox fii man dama def vaisselle laay jaay jaay crème mhm. léegi ma def woon demande. pour vaisselle ak frigo. Mhm. léegi ñu woo ma démb ne ma léegi ñëwal jël si ko. loolu ban njëriñ la lay amal ci liggéey bi. ah liggéey yëngu rek di gërëm ñu ma ko jox di leen sant di leen jàppale. ban njëriñ la lay amal ci sa liggéey laa wax. ah dina ma jàppale bu baax ma ciy yëngu. di ci gis sama bopp di ci dimbali sama njaboot. Mhm. waaw. Euh, pare nga pour lu leen jox aussi ngeen ñoŋal ko. waaw aar ko bu baax. waaw pare naa ci loolu. Mhm. waaw di gërëm Moussa la maire Mbarou Dieng. waaw di ko sant waaw madame la maire. <laughs> looy wax sa yeneen moroomu jigéen ñi. ah xanaa buñ ñu gisee ñuy yëngu dinañ am jom def nii waaw loolu de laay wax di leen sant di leen gërëm ak yéen ñi ngeen jàppale ba indi ñu fii jigéen ñi waaw.